foo ci njiiteel Cheikh Niass njiiteel groupe Walfadjri dugal na loxoom ci tabaxu jumaa ja nekk fële ci Koutiéy lu ci tolloog fukki million ci suñu koppar moom la génne jébal ko kilifa nekk ci dëkk ba ngir ñu mën a yéggale ko liggéey jumaa jile dañuy dem ci diwaanu Kaolack fekk fa Alassane Ba ngir dugal loxoom ci njeexitalu liggéey liggéeyu jumaa ju mag ju kuccéey fondation Wakf mi nga xamante ni Cheikh Niass di président directeur général bu groupe Walfadjri moom moo ko taxawal daal di yebal ab délégation bi nga xamante ni oustaz Hadi Niass ak oustaz Assane Diouf ñoom ñoo ko jiitee ngir joxe fa chèque bu toll ci fukki millions ci suñuy koppa Sidi Mouhamadul Amin Niass mu tedd ma dafa séddoo woon kuccéey lool ba bu daan ñëw kuccéey da ngay yëg kontante da ngay yëg timit mbëgte ci moom gis timit xarxaram ba na muy béllee ba tax na mbooleem kóllëre yi bàyyam bàyyi woon da ko jàppee ak fukki loxoom di ko sàmm di ko wattu di ko beesal seg baa ngi nii nag ñi nga xam ne ñoo dugal seen seen alal ci compte bi bañ ko calculer juróom benn million yu teg weccat la tuuti moom li ci des mu complété ko muy fukki million mi ngi nii indi la leen ko yéen waa Koutié pour ngeen defal ko ci jumaa ji. Oustaz Assane Diouf moom ñëwaat ci li sookee jëf jilee waaye tamit euh, ci taxawaayu fondation Wakf. dafa am loo xam ne. Cheikh ko yéene woon depuis bi mu ñëwee. béréb bi gis ko. mu amoon yéene daal. jumaa ji yi nga xam ne. dañu ne boobu ba léegi parewul. dëgg yàlla jot na ku ci nekk def ci effort ba mu pare. wax fu nag dafa am lu muy firi ci terme lislaam bu ñu ne wax fu la mooy ne yëfu ñëpp la lenn ku nekkaa ngi ci biir dañu ko samp pour loolu kese El Hadji Malick di kilifa diine ca Koutiéy ba muy jël kàddu gi gannaaw ba mu rafetloo jëf ji feddaliwaat kollëre ak dogu gi askanu Koutiéy am ngir gunge njabootu rahmatulahi alayhi El Hadji di Lamine Niass ay soldaaram lañ yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, niñ ko déggalee ak niñ ko nangulee néew na kuñ ko defal kon nag moom it fay na leen doomam ñëw na fayaat leen et tu coloré boobu nag yàlla na ko yàlla taxal ñu waa ku jëy yépp daal ñi ngi gërëm seex lu ñu mën di ko ñaanal di ñaanal papaam mi jiitu duñ yem ci wax rek il faut daanu daje defal ko ay dog wala ñu def daayira ñaanal ko. ñu ngi ko taxawal ci tàmbali weeru koor gi boobook léegi defagul sax ñaari weer fondation Wakf daal di wane boppam ci chegu 10 millions bi ci fas yéene àggali jëf yi ñu mel ci ñi ko yeyoo ci fàttali délégation bu ñu yebal bokk na ci Oustaz Assane Diouf Oustaz Hadi Niass Amadou Fati Faye Alhassane Ba ak Yaya ñi nga xamante ni askan wi dalal nañ leen ak mbégte ñoom ak taw bu njëkk ci nawetu ren ji ndox mi bëri ba ñu am ci yaakaar lool ku ci